salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp dellu soine seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñi ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci président Bougane Gueye Dany dafa ñëwoon fii ci Touba. ngir ay itteem walla itteem réew mi ci ni mu waxee ñëw dikkoon ci Cheikh Mamadul Muntaxa doon ko wax tolluwaayu réew mi xam naa dafa xamul ba xam sëñ bi yëg na ko moo tax muy dikk wala dafa bëgg dikkal boppam ngir mu wax ko benn bi ci des mooy bi mu dikkee wax ne ne daf doon wax sëriñ bi tolluwaayu réew mi réew mi fi mu toll ci xetu saxaar ak yënd yooyu bis bu tàkkee du kenn ku ko def ku dul président Macky Sall ndax loolu la ko wax nee na mooy responsable bi moom lan fal Bougane jàpp naa ne partie boppam bokk na ci ko taxoon a ñëw mooy eh, carte gi ñu salfaañewaat ko ngir baatariwaat carte gi loolu xale yi doo baatarawaat carte gi ndax buggaan buñ xoolee bi ñu récité listam ak ci wàllu xoma prénance lu ñu ko ci eh, baare ba mënul dem eh, itte ji mu ko jox fan yi joxu ko ko woon bi mu demee ba yëg ni yeewi askan wi am nañ problème ah, li nga xam ne moo di Benno Bokk Yaakaar am nañ problème waa yeewi askan wi ak bennoo ku ci nekk taxaw di réciter di wane sa bopp mu ne ginnaaw ñoom ñu ngi ah, seeni kart amut kii te ñu ngi dikkaat di kii kon mën naa jógaat ngir ma jaxase carte gi benn dañuy bàyyi ñëpp ñu dem wala kenn du fi amee élection kenn du fi amee élection mooy faaw mu tàngal leen faaw mu wan leen liñ def sa pas normal yaakaar naa mu dem yóbbuwaat listam euh, ngir def xawma nun koy tuddee euh, léegi bu ko defee moom ci boppam mu taxawaat nag euh, tax bëggaan comme journaliste la wàllu communication man dama dut xam wax te yàlla ni ko askan wi di jariñoo booy déglu doo xam lan la buggaan bëgg a wax euh, ci wàllu communication communication doo dégg mukk nit di wax di deltuwaat ci communication Bougane Bougane waxoon na ko fi Bougane lii la ki yoon moom mooy répété lu mu waxoon bu yàgg-yàgg même bu ko journaliste yi di interview di ko wi moom mooy répété ne waxoon naa nangam mais kenn ku cay dellu ne Bougane waxoon na fi lii Bougane nee na woon nangam ak nangam du bari lu kii man ma lu waxte yàlla ci communication bi lu tax waa Sénégal dégguñu communication Bougane te moom ñi gën a présenté day wax ne dafa présenté euh, programme toujours moom moo koy wax mais nga dégg ko wax ne programme bi Bougane présenté euh, vraiment doy na ma kii na bu rafet la même boo bokkul ci parteem sax wala nga bokkul ndigi mais doo dégg ko moom moo lay wax ne la man présenté naa xaw ma 19 programme wala nangam benn bi ci des mooy moom ñaari opposant la am moom dafa opposé Macky Sall opposé opposant bi bu mu nee opposant bi mooy ñoom Ousmane songo da leen opposé waat moo tax bi mu waxee léegi fii Touba gis nga bi mu dikkee journaliste yi di ko wax daanaka ñaari opposant fi nekk daf koo métti dafa mer ba kanam gi gis nga ni mu koy bàyyi leen li ngeen di wax da parce que média yi loolu lan xam loolu lan xam <laughs> moom li mu bëgg média yi xam média yi moom ñaari kenn lan xam mooy Ousmane Sonko benn opposant Yewwi Askan Wi mooy opposant yi mooy opposant bi moom loolu lan xam doo dégg ñu ne PS doo dégg ñu ne PDS doo dégg dara danaa Yewwi Askan Wi rek loolu la nit ñi di wax ndax moo fi nekk fi ñu toll wax de yàlla moo fi nekk bu ko defee biñ ko laajee wax na ne képp koo xam d'accord ci lii Macky Sall wax opposant nga dëgg la waaye loolu Ousmane Sonko moo ko njëkk a fii attention moo njëkk ne képp koo xamante ni d'accord wool ci ni Macky Sall yore réew mi ba àllarbaa nag na tëgg ay cin bugaan gisuñu ko mu tëgg cin mënoon na tëgg cin wax dëgg yàlla fekkee d'accordul lan wax noonu nee na ko d'accordul ci ni Macky Sall yore euh, bu fekkoon ne loolu def na ko dañuy xam ne d'accord waaye gisuñu ko mu tëgg cin kon xañ na daal doo jop na xañ na maanaam dafa d'accord ci li Macky Sall yore réew benn bi ci des wax na ne ñun am na ñoo xam ne dañuy korfañ am na ñoo xamante ni nangam mu ngi bëgg a wax kon ñii di opposé wu amuñu fi alal juy tax nangam ñi man li ma fi yor ci ay bien ak nangam ñoom yorunu ko xam na loolu ngay déggee wax ji bu fekkee da nga déglu beneen bi ci des man dama jàppoon ne <laughs> xam naa loolu tooñ la moom sëñ bi da ko war a doon def rek nam defoon ma dikkee ña ne ko daal mën na lu ci politique bi mu continuer ji liggéeyam <laughs> loolu jàpp naa ne su ma ko fekke woon mu koy wax rek ñu wax ko lool rek ndax daal bu ko defee nit ñi xam ne euh, opposition bi moo fi nekk te it moom bu fekkee ne dafa bëgg defar réew mi gis ne am na lum ko defaree am na vision ak contre kii kii ñu jëlee ko fii euh, ànd ak ñii yeewi askan wi nekk mu ànd ci wax dëgg yàlla mooy doole moom day néewal boppam doole nee jéem a néewalaat opposition bi doole. bu fekkee da nga fi bëgg jëli nit nanu néewal na ñëpp bàyyi intérêt yi ñu ànd te moom toujours daf koy wax yenn saa yi nanu ànd te bi ñu ko ne gars yi tàllale la ko ne ko nan ànd dañuy du di ñëw yenn saa yi mu ne ñëw leen ñu ànd ñun ñëpp nanu xeex loolu kenn du xam nan la koy nan lañ koy déggee beneen bi ci de desaat mooy euh, wàllu communication am day yëg ne wax dëgg yàlla li mu am ci communication ni mu ko manee nekk journaliste nekk yëpp waaye communication am jàllut jàllut man xaw ma lan moo tax xaw ma lan moo tax opposé wu nag ba opposé sa sa bopp nag moom moo gën a garaaw opposé bopp mooy xamoo fan nga jëm loolu moom mooy opposé wu sa bopp mooy xamoo fan nga jëm wax dëgg yàlla fi nga jëm xamoo ko da ngay kii nii rek waaw loolu bokk na fii ci li nga koy mën a xame fi ñu toll mi ngi jéem a lëng Pape Djibril Fall ngir jéem ñu ànda ndax ñu xaw a am tuuti bruit ndax Pape Djibril xañ na nangam waaye Pape Djibril moom it dangay wax ne eh, daanaka gis nga politique dafa yor ay kii yoo xamante ni gis nga góor gi nekk ci kaw ga nga defe ne xamul dara dara ci wàllu politique dafa am na muy jàng politique ci lim xam ci mbay eh, cooroon lu noor li yooyu ci la xamee politique ci la xamee politique am na koo xamante ni fan la xamee politique jënd jaay xam période bi muy jëndee xam période bi muy jaay xam nangam xam ne lii bu àggee nangam mën na koo jaayee nangam lii mën na ci am nangam gis réew mi gis nga jaaykat yi ni ñuy def yenn saa yi lu manqué ngay wër ci marché bi. buy buy buy am day bareendoo bari goo ndax ñëpp dañuy wax ne dafa manqué ñoom ñëpp ñu daw jëme ci léegi ka ki am philosophie dëgg dëgg dëgg dafay bàyyi marchandise moom mii manqué daf ko fi bàyyi dem wuti meneen moo xamante ni euh, mi ngi bëgg a manqué mu dem wuti ko waaye lii boo ko fi wutandoo ñëpp indi ko fi léegi prix bi day daal di daanu dafa mel ni loolu moom mooy doon xalaatu euh, bugaan benn bi ci desaat mooy Eh, ñii ñoom Ousmane songo du ñoom ñooy opposant yi ñooy opposant yi askan wi ñooy opposant yi te danoo gis ne ñoom ñoo gën a taxaw askan wi fi bëgg a jëlee li fi nekk danoo xool ni kii moo gën a taxaw ñoom ñëpp ñu ànd ak moom du caaga ñëpp danoo xool li Ousmane Sonko présenté eh, daf leen doy wala daf leen a neex déedéet danoo xool ne kii moo gën a taxaw ngir ñu jëlee ko fi jëlee fi li xam nga kii. suñ ko ba mu xëyee moom mën na fee jële kii waaye kii ba la ko fee jële mu yàgg te kii dañoo bëgg mu jóge fi dañuy daal di dem ànd ak moom du ñëpp a d'accord ci cent pour cent ne li songo Sonko di présenté neex na askan wi doy na leen déedéet waaye bëgg liy jóge fi moo tax ak noonu fi mën a jógee rek moom na fi jóge ku ko fi gën a mën a jëli kii moo ko fi gën a mën a jëli moo tax toujours ñuy pose pion bi moo tax ñoom ñaar fi nu dikkee surtout ki xoolal Ahmed Aidara mi dongaam donga buraan laa ko wan a tudde doon na fi meer te mën naa doon leneen ak leneen mën na fee dem ba doon député bugaan bëgg xëy laaj réew mi jaarut ci ci député jaarut ci nangam te yëpp mënoon na ko bii da doon fekk moom mu doon ko ndax heure bi bu fekkoon àndoon na askan wi kon doon na maire ci élection yi bii di ñëw danañ ko tabb ci député yi dana ci gi mais bëgg a dem ak sa bopp te politique dangay ngay langaa ba kër ngay àgg fi nga bëgg kii gis nga mag sàll mi fi mu nekk Ablaye Wade da ko tong tong bi mooy lan mooy daa dem ba waa sénégalais yi xam ko jox ko ay moye ñenn ñi am na ñu jiwoon ay njekk ñooñu bëgg nañ koo fay mooy xañ kañ la xam ne bëgg na mu bëgg ñenn ñi am nañ ci moom yaakaar yenn ñi nin koo génnee neexul bu ko defee lii xañ na daal moo Pape Djibril Fall waroon nañoo waxtaanaat seet ban élan la ñuy jëlaat te ma ne élan dina gaaw a amaat ndax politique moom boo xasee sa niveau xasee wàcc jeex na jeex na mënatoo yéegaat mënatoo yéegaat yéegaat mun mooy niveau bu wàcc mënatoo yéegaat Idriss Seck mënoo fexe fi mu toll boo ko joxoon deux milliards wala boo ko joxoon xaalis bu bari ne ko deux mille vingt quatre bi posel candidat du ko def fu koy jël lu muy def ñan la ana ana ñu muy àndal mënu ko du ko def du ko def. mënu koo def yu mel nii nag baaxul ci politicien baaxul ci kuy jóg nit bala ngaa jóg war ngaa nit fi nga war a teg sa tànk euh, ba xam ko te nangu conseil waxoon naa ko nag barki dee mu ne ko turu turu partem bi lor na ko mu ne déedéet du gëm sa bopp laaj na nu mu ne du caage na mooy gëm Sénégal gëm Sénégal waaye man xawma loolu wax de yàlla ba léegi nu mu ko firee gëm sa bopp ak gëm Sénégal bëgg sa réew daal xam naa ko waaye gëm sa réew doo ko def réew mi dafa am yu ci baax am yu ci baaxut yi ci baaxut lañ fi bëgg a jële gëmee réew mi nag bëgg sa réew nag mooy lépp lu fi baaxut nga jéem ko fee jële lu baax nga indi ko fi nga bàyyi ko fi lu baaxul nga jéem ko fee jële lu baaxul lu baax nga bàyyi ko fi lu baaxul nga jéem ko fee jële loolu mooy gëm sa mooy bëgg sa réew ngi taxaw li fi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Tanim TV.